sigil te weytoo madru yi nanti yow bu wer te bul faale ko wuy seek ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha bismillahi rahmani rahim wasalaatu ala rasulillah en mbokki julli mbokki man ñëwuma ngir waxtaan dama ñëw ngir jottali cant yi ak ngërëm yi bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Jëmb jaa ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng ak sëriñ Saliou Fatou ak i rakkam ak i doomam jëm si ci waa kër Seexul Xaddim yi fi teew di leen xamal ni la Cheikh Ibrahima Diop al masari yu waxoon mooy li xew ci jataay bi Cheikh Ibrahima Diop dani addi sukka lii kaxsun min alxamri mutribu wa sikruka su'dun fi lisani mutayyabu nee na waxtaane sëriñ Touba ni mu mel ci moom mi ngi mel ni solaar bu bufe te xamul fu muy jëlee lu mu naan ñu yore ab damsaan di ko indi te mu xam ne moo ko moom bu ci jotagul it xolam sedd na waaye ne pour tudd sëriñ Touba ci aw làmmiñ nag nee na moo gën a neex macc lemu nduyóor turu Serigne Touba dàq lem ci gémmiñ wa sikruka su'dun fi lisaani mu tayyibu Cheikh Ibrahima Diop dellu waxaat ni ni cheikhul khadim ci tiantuk sangi rek la len dox de deni serigne touba antal murabbi muraqi qutwatul fudala nurul muridina saqiim im bi saaqiqa yow yaay ki nga xamni ya gëna mëna yar ñi fi daan yare ndax Muga yar mo gëna yar ñi fi daan yare te do yem ci yar dang koy yégué ba tek ko ci loxol boromam ne ko yow nag fudala fuddala ñi fi gën ñep yaw lañuy roy ne ko muridina saqi bi saqika yoway leera ñi jëm ci yalla ñi fëgg seeni dënn defé ne dara lañu ak buñu fañuy naané ci ngalax ndikum sëriñ lañu yem daal ni wax nak ni anta safiyul wafiyul murtada alaman antal jeli yusani badi maalika yow mbolam jaamakati yalla ya sel. ci gëna sel ndax danga feeñ ci baax màgg ci gën loolu Cheikh Ibrahima Diop moo ko wax Serigne Touba dangaa feeñ ci baax màgg ci gën loolu ni nga koy dégge mooy Mbàkke ak Mbuso bi moom ku ci mas feeñ it xam-xam ab yar ak teggi na ko wilaay rek la xam ci yow ñoo xam ne ñii ñoom dañoo baax naka jekk bi sëriñ bi feeñee nag te am aw melo way juri contantine kon amati nanu dom ju bax cheikh ibrahim jum ne dañu ko boba. booba sëriñ dikul ngir bax de leena fekk mu ëndaale gën yor ko di maye bax ñu xamne du seen morom ñu jibal ko seen bop moo tax mu ne ko murtada alaman Yalla ngeureumal yalla lu ñepp xam ne ko antal jeli yu seni baa di ma alika yow say tag dafa kowe ta bari ndax bo ne serigne bu mag bi kenn lañu koy tuddé te Mamor Anta seli wax deug yalla ab serigne la Mamor Jaara ab serigne la ki baay la ki ndijaay la serigne bi feñ di serigne bu mag famu jaar ba mag leen buñu ko xaman du leen fa jëkk murtada alaman tagi serigne Touba buñu ne khadim rasul jang julli wor asaka dem ak saraxe mayewu da koo jagoo yàlla sédde ko ko li ci gën a doy waar nag mooy góor gi deman géej rek boo demee Kayaar mbaa Mbuur mbaa Jiwaalo bu gaa wàccee rek nuyu leen nee leen góor gi demen géej la wóolu ñoom danañu xam ne waxoo leen ñëw seeni bàyyi te ci géej lañ jóge kuy dem géej ba ñu juddoogul moo indi jën wi yàpp jàppandi ak leneen lu dul jën kon ñu baax ñi bu ñu waxtaanee lu mel nii di indi ay argument teg ci yoon ñu doon xam ne Cheikh Ibra naka jekk amul moroom Cheikh Mamadou Falilou Fall radiyallahu taala anhu mas na maa waxal boppam ni ma mas na maa waxal boppam ni ma sëriñ baaram ma ne ko faal mu ne ma jëfi Cheikh Ibra la ko tedd kiy bind mbindum ko tedd ke la Cheikh Ibra di jëfe lor Cheikh Modou Fallou mako wax seigne Moustapha boba lan moko sabab dama juk jil ben beuyit ci muqaddimat bi ko waxe serigne bi firee ko ni dama ne kàllaami wani yati wa fihli tawajjaat ila man kafani su'a wa durra wa saka nit amul dul li mu wax ba ñëpp dégg ko ak li muy def ba ñëpp teg ci bët ak li mu yéene te mënu ko yett yooyu la nit am sëriñ Tuubaa ne nag ku dul yonant bi alayhi salaam ci bindéef yi maa la gën a bari wax ëpple la ko gënle la ko ku dul yonant bi maa la ëpp jëf fopp ndax fa ma doon jëfe kenn bokk ko man ku dul yonant bi maa la ëpp yéene gënle la ko ñu ne waaw mu ne def naa ko lépp benn dànk jox naa ko yonant bi addiya mu ne ma nag seet loolu ba xam Cheikh rek digganteem mag Serigne Touba lu mu fi am lu mu joxal Serigne Touba tamuy la ñu war a bëgg fu ñu koy séen mu ne nag it bi mu ko ko joxee dafa mel ni da ko ko jox jeexal waaye sëriñ bi nee na yorant bi loo ko jox fekk na mu am ci lu ko ëpp da cay dolli dolli la fegal na ma ci yett yoo xam ne ku deful ne man doo ko fegoo fegal na may ñaawtéef yàq nañu maa def lu ñaaw bu pënd bi wuree ñu ma sama mbir gën a rafet fegal na ma ay lor juróom-ñetti at laa ànd aki noon bàyyi noon gannaaw ànd aki noon di rombi noonu te bi may ñibbisee ëndaaliwu ma bu léegi fegal na ma sikki sàkka sama xel musta nekk ci lu ma bëgg te jotuma ja sama xel musta nekk ci lu may dàq te soriwu ma kooku nag bu fekkente ne am na ko toll ni cheikh ibrahima fall ci ni ko ku baax kii waxee léegi ni dogalub yàlla mooy seet li ko neex mu di ko def fa ko neex te jàngkat yi jàng nañu ko ginnaaw neex lay def ben boroom xam-xam dani yàlla ko mata moyula la ak ñépp mu ëpp xam-xam ñépp moo mu raw ñépp ku bari doole la te kenn wala ak moom te kenn yaru ko ku kenn yarul tam man ñépp nag bu ne li ko neex lay def nangul dogalam te maandu ci defiinam la mu def te xamoo ko maandu ca te xam ni soob na ko rek am na nag lu ma mas laaj loo xam dinaa ko laajaat yéen ñi fi toog kenn ko ne ndax man na maa wax bëgg-bëggab sëriñ touba ci kaw suuf dimbali leen ma ci damay laajte de lan la sëriñ Touba bëggoon ba mu tee nelaw lan la Serigne Touba ragalan ba mu tee nelaw yaar yi rek a fi ne ragal ak bëgg Serigne Touba bëgg gu ñu ko mën a waxal te doo ci am bakkaar mooy rasulullah alayhi salaam jàng ngeen ko ma an ma abati muxtaar sayyiduna ubbil maqaani wa rahni wal walada kon loolu jàll na kenn la Serigne Touba ragalu loon ko dul yàlla baxda bañ na ko ba ni jamonooy ragale yàlla ragal gi nga ragal yàlla yàlla dana ci fab xëpp ko ci xoli nit ñi ñu ragal la bëgg la te duñu ko sañ bañ ñu ngi nii di sëti sëriñ Touba kenn ku nekk am nga ay taalibe fi barab ak sëti Cheikh Rafaal yii taalibe yooyu lu ñuy waxtaane nan fexe ba li ñuy yóbbu leen ëpp lu daaw la am déet bu ñu ko dajalee dañuy tànn ci seen biir ku ko yóbbu ki koy andil sëriñ Fallou wala sëriñ seex Gaynde mi buy ñukk da am na ñu koy yóbbante dañu gën boo demee nee ko bu dikkee du ko wax ndax du ñime sëriñ bi te mënu koo ñàkk gis te bu ko gisee du doyal te bu ko joxee li mu indi da ko naan yàlla na nga fi yàgg ñaanal moo ma dem loolu lu ñu fi def la am déet kon sëriñ Touba ginnaaw yàlla la ragal yonent bi la bëgg te kuy jaamu yàlla sëriñ Bamba la man fopp li mu bëgg ci Cheikh Ibra ba tax Cheikh Ibra du julliwul wóorul te man koo taf ci boppam ba tey mu ëpp fi sut fi nekk ci digg Tuubaa tey liggéeyal sëñ Bàmba loolu laa bëgg xam man xanaa Cheikh Ibra kay bu fekkente ne du julli du war te sëñ Bàmba fonk julli ba liggéey ciy téere bu fekkee ñàkk julli gi mën na koo lor mbaa mënuñu ci ànd war na ko ne mënuñu ànd feek julli ah? waaw léegi nag kon sëñ Tuubaa mi ëpp lépp ñëpp ci xam ak ci man ak ci gëm ak ci ragal yàlla li mu bàyyi ci biiram ba mu toll nii mu toll ko dis gor danga nga ciy maandoo Cheikh Sëriñ Tuubaa amul moroom Cheikh Ibra amul moroom fii rek la ko mën dafa am léegi ñaari sëti Cheikh Ibra yu ëgsi muy Sëriñ Cheikh Abdou Rokhaya Fall moy khalifa sëñ mar Talla Fall mi nga and ak serigne ndam Fall dañuy door ak léegi moo motax ñu bëgg ñu xam ni ñu ngi fi waye léegi lañu ak agsi waye ci kaw li ma doon wax ci ci bir cantuk serigne Cheikh Jëmb ak njabotam gi tok rek la ko doon wax serigne bi xol bu sedd xol bu sedd la te jaajeuf rek les ci mëna wax ci làmmiñ waye li ëmb ëpp na loolu ndax dafa am benn silmaxa xabu don yelwan gis nga borom xol bu sedd bu wax lu bari de day wax lu ëpp max day yelwan bu takusan ken saraxu ko dara mu tok sëngéem ni mom day nek ba jant so mu falantir kër xaritam fi mu sëngéem nag ben way droite auto wàcceel ko ñaari koy tiep ak juróomi góor si suukar boole ci juroomi junni ne ko sëñ bi na dama yàkkamte na la wutal auto mu yobula waji lamb ne ko lii lu mu ne ko ciep la mu def ni khalis mu ne ko juromi junni la mu tek loxom ci suukar ci mu wax ko ko xana xol bi sedd na mu ne ko yalla na la musibam yalla dal ne aha waji ne ko baxna li nga ëmb ak lii mi ñu wax ñu xol be sedd kon wa keur Cheikh Rafal yi nañu ngir megum sen kilifa te li li leen contalo mënuñu ko wax te nun ñu ko wax loo itam sunu làmmiñ diis na ci ba attanunu ko waaye ni ngeen xam ni bég nañu kontaan nañu te sëriñ tubaa rek leen tax a kontaan ak cër bii ngeen leen jox ndax ñoom wax nañu ni bu fekkante ni mbir mi rëbb la waa xudus jam nañu rabbi. bi ci paddu ba munta wéqu dañu ko rey benn yoon ñëpp ndawalu rek kon yàlla ni ngeen ko yàgg def ci daal ji maam Cheikh Rafal asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ngi jégaluwaat bu baax jataay bi xaw naa te it mbar mi itam am melokan waye pas-pas ak yene rek ju sel rek moko lol no ngi jéggulu ñep te ñaan suñu borom leen ñu jéggal ak nañu yàlla gàttandu ci ndigalul señ Cheikh Mbacke mi mom señ Mbacke Madina ak bokkami bax yi mu dendal señ Cheikh ali Mbacke ak señ Abdourahmane mi ak mboolem njabotuk daru Xuddoos ñi ñëpp ñu ngi ci biir señ Ahmadou ngi ni Sering Ousmane nga ne serigne hamsatou sering mi ngi ni serigne Galas mi ngi ni serigne Asan Mbàkke ak ñeneen bokk yi ma gisul yépp ñu ngi ci biir ñu wax ni tey ñoom amuñu kàddu li ñu am ay jëf la woon mooy bëgg ngeen seere ni ñenn ngeen ci ñoom léegi ñu ni kon kàddu mujj gi sëñ Ibra jëmb moom lañ ko jox mu jotali kàddu cant li ci des nag dañu am koñ fi toogaloon muy borom jataay bi sëriñ Ahmadou mi ngi ci biir leen fa àggee li ci des ci ay kàddu dana ko mottali waaye ñu jox sëñ Ibra jëmm bi mu jottali kàddu kilifa yi muy kàddu cant ak ngërëm ndax ñoom seen xol sedd na auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi al-azim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala muhammadin ibn abdillah وعلى آله وصحبه ما دام ملك الله فرضي الله عن شيخنا أحمد خديم رسول الله وعن كل من أحبه وتأخر في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلدي بوك تالبي njabootum مام شيخ إبراهيم الفارق تسلم شيخ جمع الفارق nekk ca seen kanam yàlla fi yàgg te wér te àggale ay naalam na mu ko bëggee ànd ko taalibe yépp kon sëriñ sëriñ Seex Njaay Mbeng moom Seex Mouhamadou Moustapha Fall moom Seex maam Seex Ibrahima Fall mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi wuutu Cheikh Mouhamadou Moustapha tàmbalee ko ci sëñ Ahmadou Mokhtar wàcc jë ci jëw ñam di sës ci moom di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Mbacke Madina ak rakkam di sëriñ Abdourahman teew na ci jotaay bi sëriñ Seex Mbàkke rakkam moom sëriñ Seex Madina jiite mboolem kilifa yu fi teew ànd ak rakkam sëñ Abdourahman sëñ Seex Aliou ak mboolem seeni rakk teewal fi mboolem ñi nga xam ne ñoo di seeni njaboot ànd ak taalibe yi ak seexi Daaru Xudoos yépp ak ndaw yi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey bi ñoom ñépp ñu ngi yëkkati kàddu yu cant ak i ngërëm di rafetlu bu baax a baax teewaay bii nga xam ne teew ngeen ko tey ci Daaru Xudoos ngir waajtaayu bisu sëñ Tuubaa guddik sëñ Tuubaa giy jublu si ci ñaar fukki fan ci weeru tamxarit te yàlla dogal borom ëtt bii di Seex Muhammadu Moustapha radiyallahu anhu taxawaloon ko gannaaw ba nga xamee ni suñ borom dimbale na ko defal ko ndam taw ko ci li ko woy juróom leen santoon di Seyxuna Ahmad al ci saaboo boo xamee ni sun borom dikk na akub dogalam mu andi ko ci dëkkam bii nga xam ne moom la gënoon a bëgg ci mboolem kaw suuf sun borom tànnal ko ko muy dëkk bu sell mu waxoon ni dëkk bi dëkk gi mu fi dëkk ak taalibe yi namm ci lenn lu dul di fi dundal sunnas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom may ko dëkk bi ak suuf si ca nam ko bëggee woon waaye nag tegal ko cam nattu ba tax na ni mu fi bëggoon a dëkke a mënu ko fee dëkke ci kaw noon bi nga xam ne mooy noonub yàlla di noonub lislaam di noonub yonent bi xeex gum ko doon xeex ndax jeex gum jeex ci ñoo ñii tax mu defi pexe ba génne ko dëkk bi waaye loolu lépp nag ci dogalub yàlla muy dogal boo xam ni am na lu mu ko nammal moom Sëriñ Tuubaa mu dib cër boo xam ne fàww loolu dana am tax mu jàppandiral ko noon yi bañ mën koo génne mu génn dëkk bi lu jege juróom-ñetti at nekk ko ci ay coono waaye it nekk ko ci jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa liggéey boo xam ni bu fekkoon ni daa toog fii ci dëkk bi du ko mënee noonee ba yàlla dogal mu dellu si ci réew mi gannaaw loola waaye taxul it mu toog fi ñu yóbbu ko gànnaar mu wàññi ko jaar ceyeen am lam fa am dellu njëreem am fa fukki at ak juróom ba suñu borom jeexal ab liggéeyam mu wàccub liggéey a déen ko nag lu jiitu loolu Cheikh Modou Moustapha mu andi ko ci suuf si Cheikh Modou Moustapha suñu borom dimbale ko ba loolee ko sëñ bi santoon mu def ko nam ko ko sante woon kon nag loola di bis boo xam ne bis bu mat a la bis bu rëy rëy la ci Cheikh Modou Moustapha ci yoonu murid wépp waaye sax ci jullit ñépp loola tax loola kon bokk ci li tax Cheikh Mouhamadou Moustapha woote bés bi ndax bés bu toll noonu màgge noonu waree su koo fàtte saa su ne warees na koy delloosi di ko fàttali ngir nit ñi gën cee mën a waaroo ci suñ borom tabaaraka wa gën cee mën a gëmee suñ borom tabaaraka wa taala waaye di ci fàttalante njàngi say njàngalem Seexuna Ahmadul Xadim ngir loolu man fee sax ilaa yawmi yub'asuun kon mën nañ ni loolu waaye di ci fàttaliku it Seyxuna Ahmad al ak ñim àndaloon ci ay ñaan jàng alxuraan jàng xasiida di ci gise di ci waxtaane suñuy mbir ak yinu ñu yitteel ci suñ biir ak siinu bopp suñ biiru bopp ak it di ci ah, gën a dëgëral bokk gi bokk sëriñ bi bu baax a baax te loolu mooy sababus kon ñi nga xam ni kilifa yii fi ne te sëñ Ahmadou Mokhtar dénk leen liggéeyu màggal gi seeni xalaat seeni gis xam bu baax a baax maam Cheikh Ibrahima Fall ni mu toll ci Cheikh Modou Moustapha loolu foog naa ni umpul kenn ñuy waxtaan waxtaan nañ ko ba tàyyi bi fi sëriñ bi soog a jógee kenn ko xam na ni lu diis a diis la ci seex Muhammadul Moustapha ñu ni ko Cheikhuna Ahmad al Xadim ni jóge na fi yaa koy wuutu ñi woon ci loxoom lépp ci sa loxo la ne ñi woon ci gannaawam lépp ci sa gannaaw la ñuy te loolu nag du doon lu yomb waaye yaa koy liggéey sa taxawaay say pexe sa pastéef sa yitte mooy àggale loolu maam Cheikh ma Fall nag bokk na ci ñi nga xam ni gën nañ koo jàppale bu baax a baax ba Cheikh Modou Moustapha amatul lu muy tiit amatul lu muy ragal amatul lu muy jaaxle ndax ku toll ni maam Cheikh Ibrahima Fall ni mu toll Sëñ Tuubaa cër bi ko suñ doon defal dootin bi ko suñ doon defal comme ni maa ngi ci sa ginnaaw loo doxal ma dagg sa xel dina dal kon loolu la kilifa yi xam te ñuy jëlloo si bokk googee ak kóllëre ga di ko fàttali moo tax kon ren jii ñu dara jaale maam Cheikh Ibrahima Fall a guddi gii ñu jublu di guddi màggal te jaare ko ci sëñ Cheikh jëmb mi fi ne mu yabal fi sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu ànd ak mboolem kilifa yi mu àndal mën nañ ni kenn desul ñoom ñëpp ñëw nañ te bu kenn ak ñaar ak ñett rek ñëwoon mu doy sëkk buñ yabaloon sax lenn ci seex si rek ak taalibe mu doy waaye ñoom itam ñu dikkal seen bopp xomp ñu bis bi woyofaluñ ko àndandoo jotaay bi li muy yàgg-yàgg kenn yàkkamtiwul kenn neewul damaa am yitte kon loolu kilifa yi gis nañ ko sëñ Ahmadou Matar gis na ko sëñ ci anjaaya kon ñi ngi yëkkati kàddu yu cant ak i ngërëm di ko teg ci sa ak ñi nga àndal ngir bu ngeen delloo ci seen seex ah, jëmb faal ñu fiy seex yibra ngeen jottali ko cant sëñ ahmadou muxtaar ak njaboot gi ak taaliba yi waaye loolu mooy cant yoonu murid bépp tàmbalee ko ci ah, sëriñ seex sëriñ ah, seex muntaqa basiir mi nga xam ni moom la fi suñu teg ak mbooleem yoon wi cant yii mi ngi ci biiri cantam moom Ah, sëñ Muntaxa Bachir ak mboolem ñu seqal kon daal kilifa yi ñi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaanal fu ngeen bëgg a àgg ci yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall yal na leen fa yàlla àggale yal leen yàlla yombalal seen mbiri adduna ak seen mbiri aaxira waaye it nag di gën a fedd li rek kóllëre googu ah, di leen wax ne ñoom kilifa yi ñi ngi déglu seen kàddu seen bëgg-bëgg seen yitte tey jii daal na xam ni gën nañoo feddali bu baax a baax gën a rappale diggante Daaru Xuddoos ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall ba ñu ngi sàkku lépp lu yëngooti ci maam Cheikh Ibrahima Fall nañ ko yëg ñoom itam taxawaay ba ca yàlla incha allah danañ ko def lépp loo xam ne yëngooti na fii ci Daaru Xuddoos it fas nañ yéene maam Cheikh Ibrahima Fall dana ko yëg mu jaare ci seen seex jëm bu fi ne ah ñuy sant bu baax a baax lu jiitu gis nañ taxawaay bi nga xam ni waa kër maam Seex Ibrahima Fall taxaw nañ ko ci ñi ngi leen ciy sant ñi ngi leen ciy gërëm di ko rafetlu tax na mbir mi gën a jàppandi bu baax a baax a baax dëkk bi seen na wecc te ay coono amu ci kon loola ñi ngi koy sant di ko rafetlu di leen ci ñaanal yàlla na ngeen gën a jekku ndigal gannaaw Baay Faal ndigal rek lañ xame kon sëñ bi nee yàlla na ngeen gën a jekku ndigal saa su ne ci wér gi ak wërsëg bi ñu ngi jéggulu kàddu yi nag moo ba tax na xaw ma lu may wax waaye kon ñoo ngi jéggulu bu baax a baax lu ci manqué di sa sëñ bi di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp yàlla nañ ko yàgg ànd li yàlla nañ mbégum maam Cheikh Ibrahima Fall te sax xay na ñaan ah, dafa war ab jullit rek waaye xam nañ ni maam Cheikh Ibrahima Fall lépp lu jëm ci sëñ neex na ko waaye rawatina nag li ñuy tudd si Amadou Sa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw da yawat ña eh, daawoote ña daawaate eh, mustawa